fii ci résidence Xaadim Rasoul bi nga xam ne moo nekkee ci Touba jàkkaarloog jumaa ji ñu naan ko kër Serigne Touba gi bâtiment bi nga xam ni Serigne Modou Rokhaya moom Serigne Modou Mamoun moom maam Cheikh Anta Mbacke moom moo ko fi liggéeyoon ci jamonoy Serigne Abdoul Ahad Mbacke ginnaaw bi Serigne Cheikh Anta mii nga xam ne tey jii moo ko fi nekkal salaat ko. cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacke moom ba Bassirou di xalif général de Mourides da ko joxaat ndigal ginnaaw màggal gi ci yeneen i liggéey yoo xam ni dañ ko war a yokk ci bâtiment bi ci fi nga xam ni moo féetee bët saalum gi muy néeg bu ñu fi war a dolli ànd ak cuisine salle de waaye it yokk ci kaw beneen néeg boo xam ne dañ koy jagleel sëriñ bi defale ci ascenseur liggéey bi nag moom la sëriñ Cheikh Anta moom sëriñ Modou Rokhaya ñëwoon ànd ak mboolemi rakkam ak taalibe yi ngir tàmbali liggéey bu ni mel ci dimanche ji dëppoo nag le 2 octobre 2022 ginnaaw bi tàkkusaan jotee ci résidence Xaadimu Rasuul maam Cheikh Anta mooy sa maam sa tey maam Serigne Cheikh Anta ak fii baatum di kël ndax sa baay bu baax ba daa tëggoo yaa koy tëggoo maa lay tëggal yaay jënd waay xool naa ñu ñëw la bakk naa la bu ko man kaa jënd daa bokkul sëriñ si am jom mag am am lu daa bokkul sëriñ si Anta Mbakke nii nga mel daa yombul ne am jom mag am am lu daa bokkul sëriñ si Anta Mbakke nii nga mel daa yombul. maa ngi yëkkati ay kaddu ci tuuru Serigne Cheikh Anta mi nga xam ne mooy sunu wasila di jëwriñu kër Serigne Modou Rokhaya ñuy ñaan suñu borom may ko fan wu gudd lool waa na ko wér dolli ko kàttanug yaram bàyyi ko am xelam ba lépp nu mu laala liggéeyal Serigne Touba suñ borom bàyyi ko fi ba mu liggéey ko teñu ñu ànd ko ak moom te lépp lu ñu weesu am ci ngërëmul Serigne bi Serigne bi nag daa woote woon woote boo xam ne nee na wooteeb sant yàlla la waaye wooteeb sant Serigne Touba la waaye wooteeb feddlewaat ak laxasaay la ndax lii mu woote. nee na nit yor na ay milliards te mënu koo am bu la ko yàlla xaasalee nag loo xam ne jomb na ñëpp sun borom jox la ko da war a sant yàlla li nu sun borom jox moo di lan moo ni bâtiment bii nga xam ne moom lañ jàkkaar lool tey fas ko yéene liggéey Serigne Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacké yal na yàlla dooli ay leeram te dooli ngërëmam ci Serigne Touba moo toogoon de wax ne lu jiitu muy tànn kër gii daa xëy seeti sëñ Modou Mamoun Daaru Salaam booba doon na gudd jëwriñu sëriñ Touba sëñ Touba ne ko ab sëriñ Abdou Lahad mu ne ko Mbàkke mu ne ko yow yàllaa ma booleeg yow waaye damaa bëgg saa yoo toogee jataayub sëñ Touba bii na nga wutal sëñ tubaa kër ndax mënu faa ñàkk nit ku amub dëkk da nga am kër. nee na loolu ci làmmiñu sëñ Modou Mamoun laa ko njëkk a dégg ci sama nopp moom Cheikh Abdou Lahad mu wax ko na ko saa yu la yàlla joxee bi señ tubaa bi na nga defal sëñ Touba kër sëñ Abdou Lahad denc bi yàlla dogalee mu dem ba toogee jataayub Serigne Touba bi naal yokkub jumaa ju rëy ji defaraat dëkk bi ba nga xam ne wóor na ko ne dëkk bi nuroo naag boroom mu ne jumaa ji ab dëkk ku ko moom yilif jumaa ja yilif penc ma sa kër day jàkkaarloog jumaa ja dama fee bëgga def kërug Serigne Touba goo xam ne ku xoolati jumaa ji xoom xool kër gi xam ne borom kër gi moom jumaa ji nag mu jël kër gi kër gi ci cosaan kër sëñ Basiroo woon njabootu sëñ Basiru amoon nañ ci ay wàll loola diggante sëñ Moussa Bassirou ak Cheikh Abdoul lañ ko liggéeyee ba népp nekk ci loxol sëñ Touba Cheikh Abdoul Ahad def ko kërug sëñ Touba sase woon ko njabootu sëñ Touba gi boole ci Daaru Salaam ci gàttal woo Serigne Modou Rokhaya mu ñëw mu ne ko damaa bëgg nga defal fii Serigne Touba néegu boppam boo xam ne yeneen néeg yi day doon néegi dali gan ñi waaye néeg bi di nekk sëñ Touba ku fi nekkal sëñ Touba bu mooy sa kër. ndax bu àdduna dee dox mën nañoo dem ba xalifab sëñ tubaa mën a bañ am kër ci jumaa ji waaye bu fi kër sëñ tubaa nekkee nag ku fay mën a nekkalit sëñ tubaa foo mën a dëkk rek sa kër ne ci jumaa jël aw dàllam aw maraakiisam moom Cheikh Abdoul Ahad sëriñ Modou Roqe woo ay rakam sëriñ Amidoun am ak ñam bokkaloon sëñ Modou Mamoun ca jamono jooja woo entrepreneur bu ñuy wax Mamadou Dieye mu ànd ak ay alaaji Saar ak ñañu àndaloon ñu ñëw fii taxaw sëñ Abdou Lahad jël aw marakiisam booba lii kaas bi digganteem ak buntu kër bi ab magasin na fa nekkoon ñu def ci fëgg jaay sëñ Abdou Lahad toj magasin ba bu xëyee fii lay yendu sëñ Modou Rokhaya woo sëñ Cheikh ture muy jëwriñam sëñ Abdou Lahad jël aw marakiisam rëdd bâtiment bi ni mu bëggee ne sëñ Modou lii laa bëgg mu doon mbaar mi dongo yi di ci siyaare lii laa bëgg mu doon néeg bi lii mooy doon wanag yi bi ko sëriñ moo Modou Rokhaya tàmbalee ba fondation bay bëgg a dëgër sëñ Abdou na ko maa ngi lay jégalu de dama dañaa soppi sa plan bi nañ dindi lañ fi defoon sëñ Modou daal koy dindi sëñ Ablaat joxaat ko beneen plan sëriñ Modou liggéey ko ba plan boobay waaj a àggaat ci fondation bi bëgg a noppi sëñ Ablaat ñëw boot loxo yi na ko sëñ Modou maa ngi lay jégalu kilay lay liggéey loo rek moo dut nit damaa bëgguñu ñu waat ko sëñ Modou na ko man yoruma xaalis bu ñuy toj di tabaxee kat jamono neexut teema laa bàyyi ba nga xam li nga bëgg nga wax ma ko. bi yoon de ba ma ko weesoo du ma ko tojaat mu ne ko sëñ Modou yow sa jëf rek laay xool waaye du ma déglu say wax ni ma bëgg rek ngay def sëñ Abdou Lahad rëddaat ko rëdd ni mbaar mi mel rëdd ni néeg bi war a mel rëdd wan ak iniñ ma war a mel sëriñ Modou engagé liggéey booba liggéey ko ba mu noppi ci kanam sëñ Abdou mu teg ko ci loxol Cheikh Abdou Lahad ànd koog rakkam yëpp nag sëñ Abdou Lahad def ko muy kër sëñ Touba bu fi masaa yendu ba ngoon bëkk néegam yi sëñ Abdou danaan ne jox leen ma lee maa ko kër goo xam ne boo ko génnee xamoo da nga fa duggaatam déet doo fa bàyyiloo moom ci kër gi sëñ Tuubaa ko moom doom du ko doon sëriñ Modou Rokhaya di ko fekk di ko jox addiyam ba sëñ Abdou Lahad dem bàyyi fi sëñ Abdou Khadir ku ne xam na ne jamonoy sëñ Abdou Khadir na mu demee waaye soxna ma maye ko jëli moom sëñ Touba na ko kër sëñ Touba gee Cheikh Abdou Lahad liggéeyoon génn kër gënu koo jaadu ci sëñ Touba demal ñu siyaare ji dafa sëñ Abdou Khadir ñëw fii ngan gu xumb lool sëñ Abdou dem sëriñ Saliou toog muy barabub sëñ Touba siyaare yim gën a fonk mu di ko fi def weeru gàmmu mu di ko fi defee digle it nag kër sëñ Tuubaa gu ne daa war a gàmmu gi ci jumaa jee ci war a raw ñuy gàmmoo fii ci kër sëñ Tuubaa gi loolu ba ñu demee ci jamonoy sëñ Modou Roqe ba bâtiment bi dal bi am lu ci ne sëriñ saali Saliou yónnee waat sëriñ Modou Roqe wax ko ko sëriñ Modou Roqe woolu sëriñ jàmbaar jii di sëriñ Cheikh mu ñëw mu ne ko kaay ànd ak sa baay Amidoune ànd ak sëñ Cheikh Touré ngeen xooli liggéey sëñ Touba boobee nu mu mën mel nañ ko liggéeye bañ nee nañ ko communiqué moom mi mu desuwaat ci sëriñ bi ne ko liggéey liggéeyub sëriñ bi day mu jox la ko bu ma sañoon du ko dé duñ ko dégg ci benn rajo dangay woote rek ñun ñëpp ñu jaayante li am ñu jox la ko ñu liggéey ko. mu ne ko kon demal noon sa ndawul baay Amidun dafa toog bu ñu yendoo fii ak sëriñ Cheikh ture ak sëriñ Amidun ba ngoon jot sëñ na ko seex li fi nekkoon jeex na ak lu ñuy añee suba mu ne ko xaaral ma dem lijjanti ji. taalab otoom moo xam fu muy aw waaye lu mën a xew daal xëyum suba dana am moom ak añub suba loolu la nekk woon ak ay baayam ba liggéey booba noppi sëriñ Saliou am ko nam ko bëggee alaaji baara toog fi di sëriñ Touba def néeg bii muy néegub ziar daayira yu bari bu xamee sëriñ Touba Cheikh Abdoulaye sëñ alaaji baara ci bâtiment bi lañ ko xamee ba sëñ Sidi Muxtaar ñëw toog fi woowaat sëriñ Cheikh Anta mu ñëw mu ne ko liggéey ba sa baay liggéeyoon damaa bëgg dem yeesaliwaat ko ñu ñaw xool ko sëñ Mor Penda Ndiaye mi nga fi nekk sëriñ bi naan pentiraat rek doy na ci ak yaatalaat fenêtre yi sëriñ bi na leen déedéet man li ma yor sëñ Touba ko moom te sëñ Touba wërta am loo xam ne ku dem sa nekk fekk ko fa danaa ko defaraat noo xamante ne bi ku ko xool da nga xam ne bâtiment bi yeyoo naag sëñ Touba toj bâtiment bi yaatuwaay bi dañ ko yokk guddaayu mbaar mi dañ koo yokk hauteur bi ci kaw dañ ko yokk boole ci garage bee nga xam ne daf ne sëriñ bi wër di wàcc di dox nit ñi di ko séen oto bi daa war a dugg ba ci biir sëriñ bi wàcc dugg ci ab néegam waaye yaakaar naa ne garage bee ko sëriñ bi defal am na ñoo xam ne bu ñu ko defoon seen kër ay salle lañ def ba ñu ko defaree ba toll ci karo dafa yónnee Espagne yónnee Italie yónnee fa kar war a gën a seere fépp na leen nañ ma xoolal karo boo xamante ne bii su ma ko defee ci bâtiment bi ku dul sëñ Tuubaa doo ko am ñu doon xool karo ba bii jënd ko mètre juróomi junni wala juróom-benn junni yu tegal te lii ne kon ay quatre cent et ñi ko kare woon a ngi fi mu ne sëñ Tuubaa am na loo ëpp lool karle ko ba mu àgg bi ñu ci garaas bi mu yónnee waat siin karo bee nga xam ne bu bal la na nañ ma wërali siin karo boo xam ne du am fenn ma def ko ci garage suuf sëñ Tuubaa bi ba ku dikk xam ne sëñ Tuubaa lii la war a am kon moom xam na kan mooy sëñ tubaa xam na it li ko sëñ Tuubaa jox ni mu ko war a def xam na dongay sëñ Tuubaa yi li ñuy jaara ci loxoom xam na ne ci butéel bi rek la war a dem waaye warut a teg ci lantinoor bi defar ko ba mu àgg Serigne Touba Cheikh Sidi Muxtaar keroog ba mi fii recevoir président Macky Sall bañ toogee ci biir mbooloo mi la ne ana Cheikh Anta mu ne ko maa ngi nii mu ne ko kii moo liggéey bâtiment bi yaakaar naa ne loolu képp dayoon na ndam doy ab sakk président xool ko mu wóor ko ne ki liggéey bâtiment bii ay millions yu bari la ci def waaye mus ta jox mus jot leetar bu mu koy ñaane dara mus ta jot leetar bu mu koy ñaane audience sëriñ bi du ñaan président du leb président du ñaan audience nee na man li ma murit yi jox ëpp nañ ma moom mu ko dajaleel sëñ Tuubaa rek lay def sëñ Sidi Muxtaar gërëm ko ca mu toog nag màggalu Touba ndax 1996 le 28 juillet 1996 la jàmbaar ju mag ja dem àjjana di sëriñ Modou Rokhaya di bisub gàmmu gii ñuy dëgmal mu toog di sëñ Modou Rokhaya màggalu Touba gi ko fi njëkk a fekk dañoo màggal ba noppi ñu am ñetti fan ma ne ko sëñ bi de ñetti fan la fi daan def dem ñibbi mu ne man du ma sëñ bi de sëñ bi mooy sëñ bi man ab dongo laa taalibey sëñ Touba yi liñ fi dajale suñ ko joxee sëñ Modou Rokhaya xam na seenub sëriñe man nag taalibey sëñ Modou Rokhaya ak yooyu sëñ Touba daje ci man liñ ma jox ñeme wu ma ko yóbbu Daaru Salaam ndax sëñ Touba wootee bisam moom ab dëkkam moom ay dongaam yebal la fa ne ma demal toog fee photo yi bi ma toog sax sëñ bee ko moom sama donga yee di ñëw lañ yor nañ la ko jox sama bis bi nag dama cee woote sant yàlla ñooñu jox ma ma defal ko ko ci cant gi ba loola des ma moo ŋoor ko delluwaat te déwuma ci sëñ ak ngoro di la tudd ma ko def ndax buñ ma yuuxoo saa ci rek jàpp ma ñu ànd ñëw ci Serigne Saliou dafa njëkk a dem ci Serigne dun leeral ko loole bi mu ñëwee ci sëñ sëñ Saliou nag leeral Serigne Saliou na ko nag maak waa Daaru Salaam donc ya nga yabaloon ci ñun ñëw nañ fa la nga leen joxoon jox nañ ñu ko lañ defe woon ci bis bi santaane nañ ko waaye maa ngi leen seereel ne benn bis bu gën a neex sa bis bi mustaam bañ génnee mu ne ma sëñ Tuubaa lu neex rek lañ koy wax kenn ko wax lu naqari seereel naa la cant gi ñëpp a sant ba desal dongo ya nag lañ andi woon ban ca santee ba noppi la ca desoon a ngi nii sëñ Saliou daa fab kaala ga tuur ay ronxooñam na ko yaa gore lii ñëpp la war waaye dangaa xam liñ la jox ni ki ko moom loolee dëkkut ci sëñ Saliou ba ci alaaji Baara ba ci sëñ Sidi Muxtaar ba ci sëriñ Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa bi ñu màggalee ba noppi mu demaat ci sëriñ Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa di ko sant si ci li nga xam ne moom la ko defal. Serigne Mountakha bi mu toogee di sëñ Touba noonu lay def ak moom ba ci màggal gii yaakaar naa ne bi may dem ci sëriñ bi moo ma woo ci baatin xam naa ne bi ma dikkee damay dem bay fëgg buntu bi sëñ mu Moustahinum sëñ Moussa Nawel woo ma na ma sëñ bee soxla sëñ sëñ Cheikh ma ne ko kon kay loola ma fi tax a ñëw maa ngi nii dugg ci buntu bi. bi may dugg moo may nuyu mu ne ko daa mel ne sëñ Tuubaa lay woo mu jël téléphone bi sëriñ bi ne ko bu subaa lu mu xat-xat nanga nga ñëw ci cérémonie bi sëriñ bi bi mu xëyee mu ñëw ci cérémonie bi bi mu nappee mu dugg ci sëñ Muntaxa leeral sëñ Muntaxa nag na ko màggal gi neex na lam daan wax ay waajuram daan ko wax ay magam mu wax ko ko dong yi ñëw nañ addiya ji andi nañ ko ban ci sant lee sëñ Tuubaa sunu borom ba noppi la desoon ci addiya jaa ngi nii moom laa doon andi. sëñ Muntaxa am ak moom jataay bu neex lool ak cant gu lool noppi na ko nag doon naa la woolu sa bâtiment bii kat am na loo ma ci waxoon waaye xam na woon naa ne mënut ndax biñ koy defar sëñ moor Penda gi nii sëñ bi da ko noon Mor nañ fi waajal néegub gan waajal fi toilette gan ma def fi ab ascenseur yi defal sëñ Muntaxa ab kaas ci kaw bu te yéeg ci kaw defal ko sëñ Sidi Mokhtar ndax sëñ bi léeg-léeg mu xat te du yéegi escalier ma defal ko fi ab ascenseur yi. waaye yaakaar naa ne dem nañ ba xam ne jamono ndakate xalif sal de murid du mën a ñàkk ascenseur yi jumaa ji sëñ Muntaxa da daan julli si waaye yéeg escalier yi dem ngeen ba xam ne def nañ fa ab bu munta ñàkk a yéeg kon sëñ tubaal la gën a noppale lañ ko war a defal sëñ bi daa mën a fàggu mag waaye loole nag la ko sëñ Muntaxa wax na ko damaa bëgg nga dolli fi ab néeg dolli fi ab waañ tàngalu kaayu kafe gee ca aju def fi ab saal su ko dee ñii ànd man am fuñ ñu féete bu ma amee gan gu ma fonk it mu mën a ne foofu bu ma ko soxlaa ñu a daje liggéey boobu nag la sëriñ bi woote nii waaye sëriñ bi liggéey boobu bi nga ko wootee bisub jaayante la saxaaba yi kat biñu ànd ak bi xare bu daje bu laajee alal saxaaba yi dañuy daje bu laajee bakkan ñu daje inna allaha astara min al muminina anfusahum wa amwaluhum bi anna lahumul janna ñiy jaayanteeg yow àjjana rek lañ bëgg te jaayante googee kat suñ borom dafa wax ne bu fekkee ne lan jaayante dëgg la fastabsiroo bi bay'ikum allazi baayaxtum bihi wa zaalika huwal fawzul aziim na ngeen d'accord yow yonent bi d'accord ak saxaaba yu ñu jaayante jox seen alal jox la seen bakkan man yàlla buñ faatoo maay gàddu seen àjjana maa leen ko waraloon kon na saxaaba yi defoon moom la taalibe yi Serigne Touba yi di def ñun njabootug sëñ Modou Rokhaya loolu lañ fas yéene def and koog yow bis bii bisub jaayante la ku ci raw raw ba faw defal ko sëñ Touba sëñ Touba di ci dëkk ba at duy tukki soo demee yowmal am ñu ne la nga defaloon sëñ Touba ma nga ma nga fa ndax kat sëñ Touba da ne adduna mooy bitim réew alaxira mooy réew ma bitim réew mii ñu nekk nag nangu ne ko yóbbante ci réew ma waaye nangu wut yóbbaale boo nekkee adduna loo yóbbante yowmal am daa am lu ñuy njëkk a jaayante sëñ Cheikh Bombali ñëwal sëñ Cheikh Bombali njëkk a jaayante téeméeri junni yi nee na boole na ko ak bakkanam ak léppam jox la ko ngir defal ko ci addiya sëñ Tuubaa ji sëñ bi nee na ngaa bari solo waaye mi ngi jaayante kon nag nit ñëpp jaayante fekk ma fi waa jaayante bii bokkut ak sasu liggéey bi bisub jaayante la sëñ Cheikh Bombal moom sëriñ seex Anta ak soxna Ndey Jóob téeméeri junni yi moo ko jaayante nee na nga defal ko ci liggéey bi na ñëpp jaayante rek na sëriñ bi nee na mi ngi lay ñaanal nga gudd fanta gën koo man waaw bisimilah na ñëpp jaayante fii lii lii ab jaayante li fii ci pax mii waaye bokkut ko sas yu ñu war a sasoo ci liggéey bi ay murit fun ndaje dañoo war a jaayante ñi am yéene te mënuñu sëñ Abdou Lahad Dioum na ñëpp jaayante bisub jaayante la lii ku ci feeñ dootoo nëbbu te alal ji dey day dañ koy lekk mu rees rek wala nga bàyyi gone yi doon ko xamuloo luñ koy doyee waaye loo yóbbante ci sëñ Tuubaa moom dootoo ko ñàkk ku joxe 20 mètres bi sëñ sëñ Cheikh sëñ Cheikh Faye moom sëñ Baba Faye nee na joxe na 20 mètres suuf ma nga ne wàcc na jaayante rek lu waay mën a jaayante jaayante ko defu ma ci sama sëñ bi deful ci poosam sëñ Touba lañ leen koy joxal rek ani ma joxal la sëñ Touba nag bu ci xuloo amee rek am na lu xew jaayante leen na ñëpp jaayante ku am yéen Ousmane day lam am ci sabina alfan wa kullun xaqoo naaru dara mayu ko lu weesu joxe alal ju kenn mën ta joxe. bokki bawal yi ñoo ñoo jaayante 400000. bokki bawal yi ak ñañ sekkan ñëpp ñoo jaayante juróom-ñett fukki junni yi. sëñ Cheikh nee na day dolliwaat sëñ Modou Mbaye Diaw jiite ko waaw góor yëf amut bàyyi de jënd rek la am waaw kay Adja Fatou mu tëngee ànd ak sëñ Ablaye Badiane jaayante nañ ñaar fukki junni jox nañ ko sëriñ bi sëriñ Cheikh Bombali de moo ci dolliwaat fukki junni yi kon muy téeméeri junni ak fukk waa sëñ bi nee na waa góor sëriñ As mu sëriñ Amidoun nii rek la meloon de ba jur doonee jëwriñu liggéey bi de sëñ seex mi la ko sëñ Modou Roqe boole loon muy taxawu liggéey bi. waaw dajale leen rek ma joxal leen sëñ Touba sëñ Maodo Mamoun Dieng peinture kat moo jaayante cent mille yi Seydina Ousmane Dey bi gaa yi jaayante daa dikk ne yonent bi ñii dañoo xaaj seen alal ñii joxe mocce ba waaye moom ba mu dikkee dana yonent bi sama alal a ngi nii bu dee ay gëleem nañ jël bu dee alal nañ def ca xare ba waaye coocee la ko suñu borom warlul nag loo xam ne wóor na leen ne jéego boobu rek ko mën a moo ko may. juróom-ñaar fukki junni yoo xam ne sawara yey na leen yàlla na ko may naa la ko bisub tey jii nga rammu leen tàbbal leen àjjana dara mayu ko ko lu weesu fekkee ab jaayante mu mu waq ay poosam def ko ca kon nag képp koo xam ne yaakaar nga ne woote sëñ Tuubaa bi ay nax la yow perte nga woote sëñ Tuubaa du ay nax ku ko jàppee nax perte nga ku ko jàppee dóor ci dóor la la ñuy dëkk waaw ku ko jàppee ay dóor ci dóor la la ñuy dëkk waaw ndax benn adduna dóor la wala gone yu jigéen yi dóor la am na benn xale bu jigéen rek boo xam ne mën ci moom 100000 sëñ Tuubaa laaj 10 000 mënoo ko ci moom connexion képp mën nga cee ñàkk dix mille francs par mois te lii moom duutu jeex adduna du jeex àlaxira bâtiment bi comme rawoon amatoo kon yokk baa ngi nii képp koo xam ne noo dara def ko ci sëñ Cheikh tabalu ko sëñ Mourou Roqaya tabaxalu ko boppam tabaxalu ko maam Cheikh Anta tabaxalu ko sëñ Mourou Mamoun sëñ Touba lañ koy tabaxal sëñ Mountakha moomut bâtiment bi sëñ Touba ko moom ku fi doon sëñ Touba rek moom bâtiment bi kon ku ko ku mu doon sa wërsëg nga fekk ko man cee def dara boo ci deful dara yow perte nga jëratul ngay xëy sëñ Mourou Roqaya nee na woon saa yu liggéeyal sëñ Touba ñoom mbaam yi ci murid mbedd mi ñoo yem am murid liggéey rek lañ koy dee wax leen poos yi jox ko sëñ Touba sëñ tubaa faj seen i aajo. day fàttali lu bari. day fàttali lu bari. te lii nga wax nii. nee na lii ñu doon wax nii. yow mi yaa doon wax. man mii maa ko doon wax. te mënees naa wax ne. mënees naa wax ne. ci bis boobu la addiyee tàmbali. ci bis boobu la addiyee tàmbali. muy xare boo xam ne. muy xare boo xam ne. yonent bi da ca doon dem. yonent bi alayhi salaatu wasalaam da ca doon dem. wax ne yéen saxaaba yi. wax ne yéen saxaaba yi. tàmbale ci Aboubacar Siddiq. tàmbalee ko ci Aboubacar Siddiq. dama bëgg xare bi dama bëgg xare bi ngeen jaayante. ngeen jaayante. joxe addiya. joxe addiya. ñu def ko ci xare bi. ñu def ko ci xare bi. xare bu toll nii kat. ndax xare bu toll nii kat. mosuñu koo xare. mosuñu koo xare. Seydina Aboubacrin. Seydina Aboubacrin. jóg. jóg. daal di dem seet lam am. daal di jóg seet lam am. mu xaaj ko. mu xaaj ko. ñëw jox yonent bi. ñëw jox yonent bi. mu ne ko noo dikkee. mu ne ko noo dikkee. mu ne ko la ma am day. mu ne ko la ma am day. xaaj naa ko. xaaj naa ko. benn xaaj bi ma jox la ko. benn xaaj bi ma jox la ko. ba ca des ma bëgg njaboot gi dunde ko. ba ca des ma bëgg njaboot gi dunde ko. Seydina Omar ñëw. Abu Bakr mooy sama la ko waaw yow kat kon ñaari fukki junni nga yoroon li moom paquet fukk la bisimilah kon sëñ Fallou dolli na jaayante bi fukki junni Seydina Omar bi mu ñëwee. Seydina Omar bi mu ñëwee. yonent bi noo ne ko noo dikkee. yonent bi ne ko noo dikkee. mu ne ko man de xaaj naa la ma amoon. mu ne ko man de xaaj naa la ma amoon. ñeenti xaaj. ñeenti xaaj. andil la ñett yi. andil la ñett yi. benn bi. benn bi. ma bàyyee njaboot ga. ma bàyyee ko njaboot gi. ngir ñu dundee ko. ngir ñu dundee ko. ndax xaw xare bi ma jëm. ndax xaw ma xare bi ma jëm. danaa ca danaa ca faatu. danaa ca faatu. wala du ma ca faatu. wala du ma faatu. yonent bi na ko jërëjëf. yonent bi na ko jërëjëf. Seydina Ousmane ñëw. Seydina Ousmane ñëw. mu ne ko Ousmane noo dikkee. yonent bi na ko Ousmane yow noo dikkee. mu ne ko de àndaale woon naa junniy gileem. mu ne ko man de àndaale woon naa junniy gileem. ak lu tol noonu. ak lu tol noonu. ci alal. ci alal. lépp mën naa dem ci xare bi. na ko li ma andi lépp nag mën naa dem ci xare bi. bàyyiwuma ci kër dara. bàyyiwuma ca kër ga dara. waaye nga am ndam. waaye nga am ndam. moo ma gënal ma bàyyi fab jal. moo a gënal ma bàyyi ci kër ga ab jal. jaayante boobee nag. jaayante boobee nag. dafa mel ni moom la ñuy def tey. dafa mel ne moom la def tey. njaboot gi fi daje. njaboot gi fi daje. fa saxaaba ya féete woon yonante bi sallallahu alayhi wa sallam. fa saxaaba ya féete woon yonante bi sallallahu alayhi wa sallam. féete nañ fa sëñ Modou Rokhaya. féete nañ fa sëñ Modou Rokhaya. féete nañ ma fa. nañ fa sëñ Cheikh kon nag nan ànd ñun ñëpp. kon nag nan ànd ñun ñëpp. féete foofee sëriñ Muntaxa. féete foofee sëñ Touba sëñ Muntaxa. sëñ Touba sëñ Muntaxa. sëñ Touba sëñ Muntaxa. man man man mënuñu koo fay. mënuñu koo fay. waaw lu nu koo fay. lu nu defit koo fay. donte dañuy jaayante bakkan sax. donte dañuy ay bakkan sax. mënuñu koo fay. mënuñoo fay sëñ Muntaxa. ndax jamono jii. ndax jamono jii. metti na. metti na naqari na. naqari na. ba noppi jaxasoo ba noppi jaxasoo na. koom yi bari na. po mi na. wutum adduna mi bari na. wutum adduna mi bari na. njëkkante bi ci adduna bari na. njëkkante bi ci adduna bari na. nit ñi ay milliards fi ne lañ soxla. nit ñëpp ay milliards lañ soxla fi ne. waaye soxla wu leen dara. waaye yéen day wu leen dara. lu dul ngërëmul sëñ tubaa. lu dul ngërëmul sëñ tubaa. ngërëmul sëñ tubaa nag. ngërëmul sëñ tubaa nag. bu kenn defe ne mën nga ko am ci lenn. bu kenn defe ne mën nga koo am ci lenn. lu dul ci ndigalul sëriñ tubaa. lu dul nag ci ndigalul sëñ tubaa. sëñ tubaa amub liggéey. sëñ tubaa amub liggéey. digal la ko. digal la ko nga dem jëfi ko. nga dem jëfi ko. ngir sëriñ tubaa. ngir sëriñ tubaa. loolu day loolu day xare badar rek la tolloon xare badar képp la tolloon ndax sëriñ Touba. ndax sëriñ Touba. dafa jaayanteeg ahlu badri dafa jaayanteeg ak ahlu badri kenn ku ci ne kenn ku ci ne mu tagg la mu tagg la ba la nga yoroon nga jox ko ba la nga yoroon nga jox ko mu topp yonent yi mu topp yonent yi topp topp wàlli yi topp wàlli yi kenn ku ci ne kenn ku ne mu tagg la ba la nga yoroon nga jox ko mu ba nga la nga yoroon nga jox ko noonu la def ak sallallahu alayhi wa sallam. noonu it la def ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. kon nag Serigne Touba. kon nag Serigne Touba. koo xam ne li baax lépp. koo xam ne li baax lépp. ni ma ni ma la ko doon waxee benn bis. ni mu ko doon nettalee benn bis ci noonu. ma di ko wax ne ko. muy wax ne ma. Serigne Touba daal. Serigne Touba daal. bi ma seetee ñi nga xam ne ñoo fi wàcc. bi mu seetee li nga xam ne ñoo fi wàcc. ci ay yonent. ci ay yonent. ginnaaw sunu maam Adama. ginnaaw sunu maam Adama. jaar fi ci ay wàlliyu. jaar fi ci ay jaar fi ci nit ñu baax. jaar fi ci nit ñu baax. dafa mel ni. dafa mel ne. Serigne Touba. Serigne Touba. bi mu jógee. bi mu jógee. di wut li muy wut. di wut li muy wut. te fuñ ko ne ku baax nga fa. te fuñ ko ne ku baax nga fa. mu dem fa. mu dem fa. buñ ko nee wàcc na liggéey. buñ ko nee wàcc na liggéey. mu toog ca barabub kooka. mu toog ca barabub kooka. di fa jaamu yàlla. di fa jaamu yàlla. di jàng alxuraan. di jàng alxuraan. di ko ñaanal. di ko ñaanal. ba kooku feeñu ko. ba kooku feeñu ko. ma ne ko li ma yoroon day. ma ne ko li ma yoroon day. jox naa la ko. mu ne ko jox naa la ko. borom barab boobee. borom barab boobee. ne ko jox naa li ma yoroon. ne ko jox naa la li ma yoroon. feeñu ko ci gént. feeñu ko ci gént. ñii dund. ñii dund. te te nit ñu baax. tey nit ñu baax. ku ne Serigne Touba dem na ci yow. ku nekk Serigne Touba dem na ci yow. wala mu tagg la. wala mu tagg la. nga tagg aw tagg delloo ko. wala nga tagg aw tagg delloo ko. wan ko ne. wan ko ne. li fi ne woon jox naa la ko. li fi nekkoon jox naa la ko. kuy wutati ci yow la wut. kuy wutati ne la wut. waaye li li ma yoroon jox naa la. mu ngi mel ni ku mel ni Cheikh Sadou Abi. ku mel ne Cheikh Sadou Abi. bañ ko yóbboo gànnaar. bañ ko yóbboo gànnaar. Cheikh Sadou Abi dafa wax ne. Cheikh Sadou Abi dafa wax ne. Cheikhu Ahmadu nicmatun awlaaha. Cheikhu Ahmadu nicmatun. awlaaha awlaaha. Cheikh Ahmadou Bamba. Cheikh Ahmadou Bamba. xiiwal la goo xam ne. xiiwal la goo xam ne. sunu borom moo ko xiiwale bindeef yi. sunu borom moo ko xiiwale bindeef yi. kon ku bëgg a xiiwlu. kon ku bëgg a tee xiiwlu. demal ci sëñ Bamba. demal ci sëñ Bamba. loolu Cheikh Sadou Abi moo ko loolu Cheikh Sadou Abi moo ko waxoon te foofu tubaab yi dañ ko fa yóbbu woon rek foofa nag ko fa yóbbu ne moom ginnaaw day wax arab ne ginnaaw day wax arab te ñii nee nañ yonente bay seen maam te ñii nee nañ yonente bay seen maam xanaa kuy jaay ker xanaa kuy jaay ker bu jant bi soo nga nga la nga wàcc bu jant bi soo da nga war a lalli waaye sëñ bi ba mu demee gànnaar waaye sëñ bi moom da mu demee waa gànnaar naari gànnaar ya dañoo mujj laxasaayu dañoo mujj laxasaayu nag waaw mu di leen wax naan inna alladina ila sarsaara qad qasadu sëriñ bi foofee la doon waxee naan inna alladina ila sarsaara qad qasadu ziyaarati ziyaarati faaraqu daarayni aw saara la ko waral la ko waral mooy Cheikh Sidiye ma nga xam ne moom moom lañ ko boole lool mooy Cheikh Sidiye nga xam ne moom lañ ko boole lool dafa toogut fenn daa toogut fenn fu jur gi mën a lekke rek fu jur gi mën a lekke rek mu tuxu fa mu tuxu fa ba mu yàgg sëriñ Tuubaa ne ko ba mu yàgg nag sëriñ Tuubaa ne ko mën kat man kat ñëwuma fi di topp ak jur ñëwuma fi di topp ak jur dama fee ñëw di topp yàlla dama fee ñëw di topp yàlla kon nag kon nag bu ngeen di demati dem leen te bàyyi di demati yéen dem leen te ba ma fi daal di daal di toog sarsaara daal di toog sarsaara Cheikh ba mu demee ba sori yëf ya ba mu demee ba sori Cheikh Sidiya Cheikh Sidiya suñu borom won ko suñu borom won ko ne ko li ngeen di wër lépp day ne ko li ngeen di wër lépp day saahir ak baatin saahir ak baatin mu ngi ci kookee ngeen bàyyi sarsaara ma nga ca kookee nga bàyyi ca ñoom ñëpp. ñoom ñëpp. ñu daal di wëlbatiku. ñu daal di wëlbatiku. seeti seeti sëñ Touba. seeti sëñ Touba. lo jaayante googu nag. jaayante googu nag. man man na maa waat ne. man na maa waat ne. taalibe yi fi teew tey. taalibe yi fi teew tey. ñoom ñëpp. ñoom ñëpp. di waa taalibe yi sëñ Touba. di taalibe yi sëñ tàmbalee ko ci man mi gën a ñàkk solo tàmbalee ko ci man mi nga xam ne maa gën a ñàkk solo na na bi nangoo woon na yonente bi nangoo woon ak na sunu borom nangoo woon ak na sunu borom nangoo woon jaayanteeg saxaaba ya jaayanteeg saxaaba ya ci xarab taboog boobee ci xarab taboog boobee noonu la nangoo seen jaayante gii noonu la Serigne Touba nangoo suñu jaayante gii te xam naa ne bu ma leen ko waxee te xam naa ne bu ma leen ko waxee da ngeen ko gëm da ngeen ko gëm bi ñu ñëwee fii di defar fii bi ñu di defar fii bi ko defaree ba noppi bi ko defaree ba noppi kenn ku ne ci nun kenn ku ci ne ci nun yëg nga ci sa bopp yëg nga ci sa bopp ak yokkute ak yokkute ba ci Seex Abdou Mbow mee ba ci Seex Abdou Mbow mee euh, sëñ sëñ Donga Mbay mii ak kenn ku yëg nga ak yokkute kenn ku ne yëg nga ak yokkute ak sëñ Njaay ngay ak man mii kay waaw ala sëriñ kenn ku ne yëg nga yokkute moom loolu nag yokkute gi jóge ci lii nee na nag loolee ñu amoon ca yokkute googee yokkute gi jóge ci lii moo ko yëpp moo ko yëpp ndax mbirum dañoo wax ne. ndax dañoo wax ne. mbirum sëñ bi. mbirum sëñ bi. lu mujj ëpp doole. lu mujj ëpp doole. fi mu nekk nii. fi mu nekk nii. Cheikh Modou Moustapha. Cheikh Modou Moustapha. lu mat a def def na ko. lu mat a def def na ko. xëcc raay bi. xëcc raay bi. xëcc raay bi. yëkkati jumaa ji. yëkkati jumaa ji. ba mu jóg ba mu jóg. loolu kenn defoon na nit mënu ko. loolu moom defoon na nit mënu koo def. waaye bi sëñ lu ñëwee. waaye bi sëñ Fallou ñëwee. defar jumaa ji. defar jumaa ji. taxawal Lamp Fall. taxawal làmp Fall. tëj tëj bunt bi. tëj bunt bi joxe caabi yi. joxe caabi yi. loolu defoon nañ ni kenn mënu ko weesu. loolu defoon na ne nit mënu ko weesu. sëñ Abdou Lahad nu mu def. sëñ Abdou Lahad nu def. yokk ko yokk jumaa ji sëñ Abdul Xaadir sëñ Abdul Xaadir lim fi toog bariwul lim fi toog bariwul waaye lim fi ramm waaye lim fi ramm ci ay bindeef ci ay bindeef bari na lool bari na lool sëñ Abdul Xaadir sëñ Abdul Xaadir moo njëkk toog moo njëkk a toog ñu tëral ay néew ñu tëral ay néew ci kanamam ci kanamam mu ne roj mu ne génn leen kii mu ne génn leen kii ñu génn ko ñu génne ko mu ne yóbbu leen ko daaru salaam mu ne yóbbu leen ko daaru salaam kii suufu si daaru a ko mën a kii suufu si daaru a ko mën a ram yéen ngeen nu bokk ci kër goo gee ñun ñu bokk ci kër googee mën nañoo def lu lu lu mu sant sëñ Tuba mën nañoo faj sant sëñ Tuba ba jot ko déedéet ko sant mënuñu koo sant wóor na ma ne sëñ Tuba nangul nañu ko sëñ Tuba nangul ñu ko de ndax kër gi nga xam ne. ndax gi nga xam ne. moom dong la am ci Touba. la am ci Touba. ak néeg bi nga xam ne. moom la am ci Touba. moom la am ci Touba. donte moom moom lépp itam. donte moom moom fii lañ ko féetale. fii lañ ko féetale. fi lañ toog. fi lañ di ko wax. di ko wax te li ñuy wax. te li ñuy wax. moonu ko gën a dégg. moonu ko gën a dégg. Sëriñ Touba mooy koo xam ne. Sëriñ Touba mooy koo xam ne. yàlla may na ko. na ko. ba mu feeñee jamono ba léegi. ba mu ba léegi. lu waay wax ci moom. lu waay wax ci moom. mi ngi mi ngi lay dégg. bu la neexee mu tontu la. bu la neexee mu tontu la. bu dee lu ko neex. bu dee lu ko neex. bu dee lu ko naqari. bu dee lu ko naqari. bu bu ko neexee mu duma la. bu ko neexee mu duma yu mucc sax. waaw loolu nga laaj ko nga laaj ko ñu koy <laughs> waaw nga laaj ko ñu koy diingat. waaw. kon nag liggéey bi. kon nag liggéey xam naa ne. man xam naa ne. dana àgg fuñ ko sax fan ko bëgg a àggale. dana weesu sax fañ ko bëgg a àggale. ndax euh, mboolem jëwriñ yi. ndax mboolem jëwriñ yi. taalibe yi yi ma àndal man. moom nee na taalibe yi mu àndal. ñëpp ay jëwriñ lañ. ñëpp ay jëwriñ lañ. sëñ Maamun mi mooy sama jëwriñ. sëñ Maamun mii nag mooy sama jëwriñ. waaye nag ñi ci des ñëpp ay jëwriñ lañ. waaye ñi ci des ñëpp nag ay jëwriñ lañ. kenn ku ci kenn ku ci ne. boo sañoon. boo sañoon liggéey bi yaa koy def. yow rek yaay def liggéey bi. ba ci jigéen ñi. ba ci jigéen ñi. jigéen ñi gis naa seenub taxawaay. jigéen ñi gis naa seenub taxawaay. ba ci sunu waay jur yee. ba ci sunu waay jur yee. di soxna Njaxat. di soxna Njaxat. ak soxna Ndey Silla. ak soxna Ndey Silla. ak ña ca des. ak ña ca des. kenn ku nekk. kenn ku ci nekk. sab jaayante ñëw na fi. sab jaayante ñëw na fi. waaw boo jaayantee. boo jaayantee. sag njaboot jaayante. sag njaboot jaayante. sëñ bi nangu loolu lépp. sëñ bi nangu loolu lépp. te loolu kat. loolu kat. ni ma ko daan waxee rek. ni ma ko daan waxee rek. man noonu dong laa ko man noonu dong laa ko gisee. jaayanteeg sëñ bi. jaayanteeg sëñ bi. sëñ bi doy la. sëñ bi doy la. nga jaayanteeg moom. nga jaayanteeg moom. lam la jaayanteel mu nangu ko. lam la jaayanteel mu nangu ko. day mel ni rek. day mel ni ñu taxaw bis penc. taxaw bis sëñ bi sëñ bi taxawal ga ak gaal. sëñ bi taxawal ak gaal. gaal gu rëy. gaal gu rëy. ne ne yow sëñ Mamoune Diagne li nga jaayante woon. ne yow sëñ Mamoune nu mu toll woon. nu mu toll woon. nga wax ko. nga wax ko. mu ne la yàgg koo bokkal. mu ne la yàgg koo bokkal. dugg leen ca gaal gee. dugg leen ca gaal gee. àjjana la jëm. àjjana la jëm. sëñ Modou Thiam. sëñ Modou Thiam. ana ñi nga bokkal. ana ñi nga bokkal. àndal ak ñëpp. àndal ak ñëpp. dem leen ca gaal gee. leen ca gaal gee. àjjana la jëm. àjjana la jëm. te àjjanay Firdawsi lay jëmit. te àjjanay Firdawsi lay jëmit. day yéex nag. day yeex nag. kenn ku ne. kenn ku ne. da ngay dund li nga bëgg a dund. da ngay dund li nga bëgg a dund. te mu ànd ak wér. te mu ànd ak wér. ba noppi. ba noppi boo faatoo. boo faatoo dugg ci gaal gi. dugg ci gaal gi. dem àjjana dem àjjana. kon nag nañ sant bu baax a baax nag nañ sant bu baax a baax. ñaan sëñ Touba sëñ Muntaxa yàgg fi. ñaan sëñ Touba sëñ Muntaxa mu yàgg fi. suñu liggéey bi suñu liggéey bi ak jàmm. àgg ak jàmm. sëñ Mor Penda mii ñu dénk liggéey bi. sëñ Mor Penda mii ñu denk liggéey bi. ba ba mu àggee ba léegi. ba mu àggee ba léegi. mu féete fii. mu féete fii. mënut a dem fenn. mënut a dem fenn. lu sëñ bi laaj laaj ko ko. lu sëñ bi laaj laaj ko ko. moom it ñaanal ko. moom it ñu ñaanal ko. suñu borom may koog wér. suñu borom may koog wér. ak pajug aajo. ak pajug aajo. mbooloo mi moom. mbooloo mi moom. bu kenn jaaxle. bu kenn jaaxle. ci suñu aajo moom dana faju. suñu aajo moom dana faju. alhamdulilah nañ ko ñaanal moom it mu yàgg fi loolu te wér. di leen baalu àq. di leen baalu di leen baal àq. di ñaan sunu borom rek. moom mi nga xam ne moom rek moo man moom mi nga xam ne def ak dindi ci loxoom la ne. moom mi nga xam ne mboolem sañ-sañ yi ci loxoom la tege. ñu ñaan ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci barkeb sëñ Touba liggéey bii nga sumb yow sëriñ seex sunu borom yàggal la fi lool te wéral la yaa sa rakk ji toog sawet ak taalibe yépp nii nga toogee woote ñu tàmbali ko sunu borom kàttanal la dara bañ laa jot ba sunu borom yeggale ko bañ ànd koog yow di ko ubbi. di jox sëñ Muntaxa caabi ji fii ci barkeb sëñ Tuubaa loolu rek lañ doon wax bisimilah na ñëpp nangu ñaan te xam ne liggéey bi dañ koy door